والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين أما بعد فهذا اليوم يوم العيد لكل مؤمن مسلم محسن سعيد fashkuru llaha tabaraka wa taala fii ala kawnihi sururan linnabii wa liman yaqtafiih salla wa sallama wa baraka alayhi llah fi alihi wa sahbihi wa kulli man talah wa uusikum fihi wa baadahu bimulaasamati ma xtiira lakum min al axlaaqi wal aqaaidi wal aqwaali wal afcaal li wajhi llahi taala al qaa'id وأحذركم فيه وبعده عن فعل ما لم يختر لكم من العبادة من العبادات والعادات فإنما اختاره الله تبارك وتعالى لكم هو الجامع للسعادات وطوبى لمن لا يلتف إلى غير ربي ملازما ما اختير له من منير لبي وويل لمن قاده إبليس إلى ما شاء فإنه يلازم ما أغثى وأساء قال الله تبارك وتعالى wa ma aatikum rasul fa xuduuh wa qaala allahu tabaraka wa taala faman yacmal misqaala darratin xayran yara fa tuuba liman a liman axada ma ataa bihi rasul alayhi bi alihi wa sahbihi salaama muqti suud muqti suud wa lilladi himmatuhu tartaqi ila alxayr laa ila alkadari waddayr wa waylun liman yaaxusu ma ataa bihi almuntaqa alayhi bi alihi wa sahbihi salaama salaama salaama man jaada bintiqaa uxadirukum ayuha al ixwaan bi wajhi man kafaani dawi lxasadi wal udwaan bi an laa bi an laa tufaarixu maxtiira lakum kawnuhu kawnuhu kawnuhu sawaaba fa innahu mima yuwajjihu ilaa gayrikum al ajra wa ridaa wa sawaaba wala tatlubu lkarama bi gayri taqwa fa inna alkarama huwa taqwa ولا تطلب العزة من غير العزيز المعز بجاه عبد بجاه عبد عبده نبيه رسوله الأعز فإن من أدبر عن الله تبارك وتعالى ما فإن من أب فإن فإن من أب فإن من أدبر عن الله تبارك وتعالى مع الوسيلة قاد إليه كل ما كل ما كان يرتقي إليه من الجميلة يا أيها الناس اعبدوا ربكم اتقوا الله حيث كنتم man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri falyaqul xayran aw liyasmut qad axbarani rasulullahi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa barak anna man taaba min ummatihi qabla mawti fa innahu yashfau fihi inda mumiiti mayti wa anna man lam yatub minhu tawbatan nasuha faqad amarahu man wa'azahu nasiha rabbana la tuzig qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الذي جعل يوم العيد يوم التوسعة والتفريح والإطلاق والصلاة والسلام على من أخرجنا من ظلمة الجهل والشرك والنفاق والإملاق سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ذوي الوفاق وعلى من تبعهم بإحسان وعلى من تبعهم بإحسان في جملة الآفاق أما بعد فهذا اليوم يوم مبارك ولنا فيه شيء لم نشارك fahmadullaha fahmadullaha tabaraka wa taala ala man ala man jaada bihi fiihi lil ala man jaada bihi fiihi lil muntaqa alayhi salaamahu bi jamiici muqtafiihi fa inna haada alyawm fa inna haada alyawm yawma aklin wa shurbin wa itq bi fadli man jaada bi fadli rabb faman shakara allahu tabaraka faman shakara allahu tabaraka wa taala fiihi fa innahu yafiru bi kulli ma min alxayri yastafiihi watlubu min allahi tabaraka wa taala xayra fa innahu tabaraka wa taala yasrifu ila gayrikum dayra وتوبوا فيه إلى الله تبارك وتعالى من جملة العصيان فإنه يغفر لكم ويكف إلى غيركم لبالطغيان وتوجهوا إلى ربكم بالكتاب والسنة والإجماع فإن الله تبارك وتعالى يكفيكم من أبوا فيه, فيه من, من أبوا فيه الاجتماع bijaahi dil xasawaati almurdiya sallallahu alayhi bi aalihi wa sahbihi dabil ardiya alhamdulillahi alladi hadaana li haadaa wa maa kunna linahtadiya lawlaa an hadaana allah alhamdulillahi rabbil aalamiin alhamdulillahi alladi lam yattaxid waladan wa lam yakun lahu shariikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun min az-zulm subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun